deuxième chose bi mooy ils veulent assurer la sécurité mais c'est pas simple gis nañ université ni mu bindoo en tout cas Dakar xaw ma yeneen université yi mais <laughs> université Dakar ni mu bindoo pour assurer la sécurité de l'université c'est hyper compliqué xam nga defoon nañ fi ay barrage ak yu mel mais loolu mënu teree empêcher kenn affaire foule bu ñëw mënuñu ko empêcher mu dugg parce que y a des ouvertures un peu partout à l'université. Mm-hmm. Ah, y a des ouvertures un peu partout alors loolu li ma bëggoon wax que étudiants yi war nañu jël cette mesure la mesure en de la situation comprendre que ni ñu woon am un temps de réaction mhm. euh, rapide maintenant nag li si des mooy y a des mesures yoo xam ne war nañ jël maintenant si question bi mu posé mu wax ni question bi c'est pas simple parce que dafa démarrer à la base système éducatif bi la mhm. le système éducatif sénégalais am na benn temps rek invité woon nañu je disais que dañu war a changer le système parce que dañu ko hérité de la euh, colonisation basé ci ay principes. mais yéen ñi ci nekkoon xanaa gisu leen ne fii la ñuy yóbbu. parce que quand même. mais les gens ont xam nga bu ñu waxee politique aussi du tey la politique du université les Modou Diagne Fadala c'est des purs produits de d'étudiants politiques. ñu nekkoon ci tey ñoom ñoo nekk di gérer fii donc yow tam dem nga ba retraité vous avez fait également de la politique qu'est-ce qu'avez-vous fait pour éviter que ñu yegg si fii en fait. université soo nekkee université ce n'est pas que damay ñëw di def politique pour faire changer les choses mais tu interviens dans les structures moi j'étais membre de l'assemblée de l'université avant les modifications là pendant pratiquement toute ma carrière j'étais membre de l'assemblée de l'université et foofu la doon poser les véritables problèmes mhm. tous les systèmes là ñu fi doon indi ay LMD tout ça et cetera crois que dafa ñëw dugg rek c'était des combats mhm. jeex on n'était pas d'accord man mii j'étais pas d'accord jusqu'à présent <laughs> je pas d'accord avec ce système là ay combat yooyu lañ doon mëne à l'intérieur beneen combat bi c'était le niveau des étudiants dañ ko doon xeex qu'est-ce qui s'est passé wax na ko léegi université de Dakar lañ daan envoyé tout le monde maintenant deux facultés ñu daan jël l'essentiel des universités muy fac de lettres fac de fac de droit mm-hmm. et même certains disaient que déchets yi la ñuy envoyé foofu des gens méchants situation bi c'est pas dañ ko doon xeex niveau bi mooy lan da ngay gis étudiant bu egsi à l'université mm-hmm. mënul wax français bu correct man loolu laa leen di wax ma leen tant que commencé yow ñu di làkk joolaa wala séeréer wala tukkuleur da ngeen war a jàng français wax ko correctement dëgg-dëgg wax ko correctement déjà c'est la première chose mais du ñu ko def ma ne ko soo bëggee en su ma jëlee euh, suñu faculté nga bëgg nekk euh, avocat wala magistrat làkk français mënoo comprendre li ñuy wax sa va être compliqué c'est comme un médecin boo xam ne maîtriser wul en réalité affaire yi donc c'était difficile mm-hmm. base bi foofu la woon alors soo ko comprendre wul il sera sera difficile nga comprendre raisonnement yi or contrairement à ce que les gens croient université yëpp science la raisonnement la <laughs> logique la doo ñëw rek di réciter comme les <laughs> gens croient au lycée da ngay soo amul possibilité raisonnement du sotti donc bi foofu la nekkoon maintenant li am na loo xam nag sa dépend de l'université li dépend si université bi c'est deux choses c'est d'abord le massification bi wax nañ ko manque de financement bi wax nañ ko et troisième chose niveau enseignant yi moi je peux le dire niveau enseignant yi. à l'université. oui je dis niveau enseignant yi. ah bon mais des doctorants il faut le dire. est-ce nañu wax seen lam-lam. non doctor doctorant du du après quelqu'un va mettre ah, mettre conférence il est encore il est c'est la base parce que aujourd'hui da ngay jaay géej ba cinq ans nga jékki-jékki tu te après on te dit garaawul nañ leen jox CICP alors que c'est la base après on veut ah. qu'il devienne un étudiant avec un foofu la nekk maintenant bis li si des loolu rek lay terminer si bi may wax affaire master yooyu mooy que dañu jël le système mhm. universitaire occidental basé sur la performance mooy lan mooy que université dafa élitiste on ne prend que les meilleurs. Mhm. alors soo soo ñëwee normalement au niveau euh, de de de de de kii du bac dafa waroon am sélection au départ il y avait une sélection ñëpp ñu daan ñëw université maintenant les étudiants sont tellement battus <laughs> que sélection amatuñu demande même que ñu euh, euh, kii orienter tout le monde et moi je dire que. d'accord naa si loolu parce que soo ko deful tu vas sacrifier beaucoup de de jeunes soo ko defee aussi tu vas sacrifier le système éducatif donc vous avez c'est c'est un problème maintenant sortie bi mm-hmm. master da ngay ñëw ñun la système LMD moo tax ma la wax ne moi je combattais système LMD da ngay def le les trois premières def une année mm-hmm. muy master 1 pour dem master 2 c'est pas automatique et ça c'est le système LMD au plan international c'est pas automatique étudiants yi xamuñu loolu pour ñoom <laughs> da nga war a continuer master 1 master 2 soo ñëwee ñu la def nga sa master 1 doo mën a def. master 2 wala nga dem ba wala nga dem licence ñun la doo mën a def. master il faut sélectionner donc le problème mooy sélection bi. c'est la sélection et kooku comme encore une fois ni ma leen ko waxee dañ ko hérité. c'est à nous de changer de manière de de changer notre université adapté ko à nos réalités.